ngeen di abonné fii ci Tawfekh Production ngeen mën jot mboolem vidéo boo xam ne dugal nañ ko ngir mën a xam li nga xam ne mooy Touba ku fekk Cheikh Saliou Mbacké dafa ne nu magal Serigne Saliou Touba katabalaw tabaaraka wa taala an baytala la Touba في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امين الواي اي ci jiituwul ci néegi Tuuba kay soriwul kay ah. ko Makka si ay ngi noom si yërmande sëriñ bi noo lay dagaan di la xaaraan di la ñaan yow mi sa xol amul ka ñaan ko gis defal ko yërmande te di la yalwaan ak a jooy sunu lori xol ba faw ni wooy ngir aji yaakaar di bañ a sooy tabe nga booleeg yërmande Serigne Saliou Mbacké Serigne Saliou Mbacké Serigne Saliou Mbacké Serigne Saliou Mbacké Serigne Saliou Mbacké Serigne Saliou Mbacké ku bëgg Cheikh Saliou Mbacké defal nu magal sunu waaja te di la yalwan ak a jooy sunu lori xol ba faf ni wooy ngir aji yaakaar di bañ a sooy tabe nga boole ngir ma ne Serigne Saliou Mbacké te di la sukkal na jigéen te di la raamal di la foon a sa yërmande Serigne Saliou Mbacké te di gëm te di la yéem te loonu wax ñu ko jéem di bañ a mooy di bañ a juum ngir bëgg a am sa yërmande Serigne Saliou Mbacké te di la jox te doonu laaj te loonu laaj du ñu ko waaj te lu mu rëy rëy duñu ko xaaj ngir bëgg am sa yërmande Serigne Saliou Mbacké Serigne Saliou Mbacké Serigne Saliou Mbacké Serigne Saliou Mbacké Serigne koo ci woo mu dal di ñëw amaana sax mu sax fi yow te loo ko wax mu dal di daw ngir bëgg am sa yërmande tàggoo ki ndey tàggoo ki baay du mbokk du xarit te du waay du jege ñaale du ni ngir bëgg am sa yërmande Serigne Saliou Mbacké yow la nu def ngay sunu baay di sunu yaay di sunu maam di sunu waay di sunu nijaay di sunu ngën gi yërmande Serigne Saliou Mbacké yow mi nga am li ngay mébét suñu yow bal di la roy dindi ko def fi yërmande ku bëgg Cheikh Saliou Mbacké defal neenu magal sunu waaja yàlla nu sax ci yow ba dee amiin ay bàyyi saal nga sax ci nun bañ a dem yàlla nu sax ci yow ba dee amiin ay bàyyi saal xajoon nga fee loxo ca kaw sëriñ Saaliw na soppay sëriñ saaliwo xajoon nga fe jubleen taxaw màggal sëriñ saaliwo xajoon nga fe waaw ana soppay sëriñ saaliwo xajoon nga fe ay canu màggal sëriñ saaliwo xajoon nga fe loxo ca kaw ci seex saaliwo xajoon nga fe waaw ana soppay sëriñ saaliwo xajoon nga fe yow ci jërëjëf baax na baax na baax na jërëjëf taar kàll noo nga ñaan yàlla ku jóge ci bis bii yàlla na nga yokk aajo bu waaye am yàlla na ko yàlla saafara ci teddaangay Xaadimu Rasuul noo ngi tuubal ñëpp di yàlla yàlla nu fekk at yu bare bare kenn bañ a manqué taar kàlla jërëjëf jërëjëf alaaji Seex Jóob Mbaay yàlla na yàlla guddal sa fan yàlla na yàlla wéral la mbaay micro